jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke Balla. asalaamaaleykum Mbacke. xam naa da ko yaru waaye jërëjëf ko war a wax. <laughs> jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf borom Touba.